comme ça, gars, j'espère que vous allez bien. Ndax xam ngeen yoote wala damier point pouce puis on y pion puis on y dit. Mamadou Mame Job Benno Bokk car motion de censure Bassirou Diomaye Fay, dissolution assemblée nationale Mamadou Mame Job assemblée nationale c'est CESE HCCT kenn du ko et Bassirou Diomaye Faye dàq naa Abdoulaye Daouda Diallo Dakhna Aminata Mbengue Ndiaye bloqué n'a compte Ousmane Sonko dal ne ñu bari ci ministres yi ak directeurs yi fi nekkoon ñun ñoo leen tere génn réew mi daanu leen càmbar ba xam alali réew mi fu ñu ko dugal problème yaa ngay démarré am nañu jot rëcc nag waaye fu ñu mënti nekk daañu dellu si biram Seck bu forum civil dal ne ñu ngi tàcc loola ci réduction des comptes yi waaye nañu publier rapport IGE waaw Mamadou Diop Decroix daal ne doxalin wii ñu am ci réew mi moom kontaan na ci Diomaye ak Sonko tàccu moom it Bougane Gueye daani moom dafa jàpp ne Benno Bokk Yaakaar ak Pastef ay kulun lañ maanaam ay caaxaan rek la nu nekk di def am na dola ko nekk ak xalaatam euh, Cheikh Yérim Seck nee na Cheikh Omar Diagne mu ngi door a laal laalaake ba mu duggee Maroc deux mille six doomu aadama la gendarmerie arrêté ci ay ño xamné recul de chance manam ña meurtrier agression wa 2630 jarama six dari serigne buub wa Kaolack amna ñuko méré mere ndax ndox ya ndox ma nga euh ta gam cheikh al islam al ibrahim ñas gi léegi mu yex ay serigne mom mu nga sin di wut ay partenaire président Diomaye it mu nga sin moom di wut ay partenaire kawtef waji dafa japp yaayam ak papam door leen bañ teudal sen bokk parce que nee na paa beeg mère bi ñoom ñoo may rakkam kam bëggoon ndaw si la bëgg waaye waxu ko woon bi may ko rakam bu góor mu dóor leen bañ tëdd